بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله yéen mbooloom lislaam yéenay ngën ji mbooloo bu ñu génne ñeel nit ñi da ngeen di diglu lu baax da ngeen di teru lu bon te da ngeen a gëm seen borom yàlla
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب معرفة طريق الرؤية قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي ان ابا هريره اخبره ان اناسا قالوا ان اناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤيه القمر ليله البدر قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فانكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامه فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الامه فيها منافقوها فياتيهم الله تبارك وتعالى في صوره غير صورته التي يعرفون فيقول انا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى ياتينا ربنا فاذا جاء ربنا عرفناه فياتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون فيقول انا ربكم فيقولون انت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فاكون انا وامتي اول من يجيز ولا يتكلم يومئذ الا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رايتم السعدان قالوا نعم يا رسول الله قال فانها مثل شوك السعدان غير انه لا يعلم ما قدر عظمها الا الله تخطف الناس باعمالهم فمنهم المؤمن بقي بعمله ومنهم المجازى حتى ينجى حتى اذا فرغ الله من القضاء بين العباد واراد ان يخرج برحمته من اراد من اهل النار امر الملائكه ان يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن اراد الله تعالى ان يرحمه ممن يقول لا اله الا الله فيعرفونهم في النار يعرفونهم باثر السجود تاكل النار من ابن ادم الا اثر السجود حرم الله على النار ان تاكل اثر السجود فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياه فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه ثم يقول الله تبارك وتعالى هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن لا تسأل غيره فيقول لا أسألك غيره ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي رب قدمني إلى باب الجنة فيقول الله له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيتك ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول أي رب ويدعو الله حتى يقول له فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره فيقول لا وعزتك فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا قام على باب الجنة انفقهت له الجنة فرأى ما فيها من الخير والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي رب أدخلني الجنة فيقول الله تبارك وتعالى له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول أي رب لا أكون أشقى خلقك فلا يزال يدعو الله حتى يضحك فلا يزول فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه فإذا ضحك الله منه قال ادخل الجنة فإذا دخلها قال الله له تمنى فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله ليذكر ليذكره من كذا وكذا حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله تعالى ذلك لك ومثله معه قال عطاء بن يزيد وابو سعيد الخدري مع ابي هريره لا يرد عليه من حديثه شيئا وابو سعيد الخدري مع ابي هريره لا يرد عليه من حديثه شيئا حتى اذا حدث ابو هريره ان الله قال لذلك الرجل ومثله معه قال ابو سعيد وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه قال أبو سعيد أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة باب معرفة طريق الرؤيا الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ñu del si incha allah ànd ak al imam muslim ci bunt bi nga xam ne tàmbali woon nañ ko ci jataay bi weesu woon mu di gis gi nga xam ne ñi gëm yàlla ëllëg dañ koy gis seen boroom ñu waxoon ca bind ba weesu ne xéewal gi gën a rëy ci xéewal goo xam ne danañ ko xéewale waa àjjana moo di seen boroom feeñu leen ñu gis ko waaye ginnaaw gis sunu boroom tabaraka wa taala ëllëg dafa doon buntu xam-xam boo xam ne lenn ci kuréel yi dañ cee réer am ci ñu ko weddi carrément ne nit du gis yàlla ci àdduna ak ci àllaaxira loolu moo tax al imaam muslim ni ko al imaamul buxaari ab sëriñam defe mu defe ko noonu mooy indi dalil yu bari muy ay xadis yoo xam ne dañuy tegtale ne jullit yi fii ci àdduna la doomu aadama mënta gise boroomam tabaraka wa taala waaye bu ëllëgee dañuy gis seen boroom jàngoon nañ ne ci biir àjjana xéewal ga gën a neex ci xadisu jarir niñ ko gise woon mooy seen boroom tabaraka wa taala feeñu leen bii nag dalay won geneenu gis goo xam ne bokkul ak bañ nekkee àjjana ngir nga xam ne kon alaxira la fa nekk ab àtteem bokkul ak àtte fii ci àdduna dëgg la fii ci àdduna moom nit du gis boroomam tabaraka wa taala loolu mënta nekk waaye nag ëllëg borom bi tabaraka wa taala mi bindoon nit xañoon ko fii ci àdduna kàttan gu mën a gisee boroomam moo koy jox kàttan goo xam ne dana mën a gis boroomam moo tax buntub baabu maarifati tariqi ruya maanaam bunt bi dafay jàngale anam gi nga xam ne noonu la nit ki di gise boroomam tabaraka wa taala الإمام مسلم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم كن الإمام مسلم من كجلي كم نم جلي حديث يبري في زهير ابن حرب كوك جلي يعقوب ابن إبراهيم يعقوب جلي بايم إبراهيم كوك جلي ابن شهاب وزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عطاء مومو موكو جلي كون أبو هريرة أن أبا هريرة أخبره أن ناسا mu ne abu hurayra wax na ko ne dafa am nit ñoo xam ne qaaloo li rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax nañu yonent bi yàlla ba ne ko yaa rasulallah yow yonent bi yàlla bi hal nara rabbana ndax dananu gis sunu boroom yowmal qiyaama kon ab laaj la ndax yowmal qiyaama ndax dañuy gis sunu boroom xadis bi dëgg la abu hurayra moo ko nettali fii waaye ku dul moom ci saxaaba yi nettali na ko bokk na ci ñi ci gën a siiw abu saïd al xudri mi ngi ci xadisam mi ngi ci saxiixu muslim mi ngi ci saxiixul buxaari itam kon laaj bi dafay laaj yowmal qiyaama waxut rekk gannaaw dee waaye bi nga xamee ne nit ñi dekki nañ ba jóg foofu moom la ñu tuddee alqiyaam yowma alqiyaamati min alqubuur ndax foofu danan fa gis sunu borom fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent bi yàlla bi mu tontu leen kon dañ ko posé question mu war a tontu mu ne leen hal tudaarruuna fi ruyati alqamari leylata albadr hal tudaarruuna ndax da ngeen lorante am na beneen riwaaya hal tudaamuuna ndax da ngeen raj raj loo wala ngeen di lorante di kii di bëmax kii kii di bëmax kii su fekkee ne weer wi jekki ne ba toll ci digg asamaan laylatul badr guddik fukk ak ñeent wala fukk ak juróom nga xam ne weer wi bu jant bi soo rek ci digg asamaan si lay nekk leer nañ ñu ne leen yéen doomu aadama yi kaay leen xool weer wi ndax dana aajowa kenn ku ne naan toppal ma xool kii di bëmax kii kii di bëmax kële kooku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen ko laaj jox leen misaal itam ngir leeral leen laaj bi ñuy laaj hal tudaarruuna fi ruyati alqamar ndax da ngeen lorante ci kaw ne yéen a ngi xool weer wi laylatul badri su fekkee toll na ci guddik fukk ak ñeent wala fukk ak juróom qaalu la ñu ne déedéet yaa rasulallah loolu kay lorante du ci am kenn ku ne da ngay taxaw sa place rek xool gis mu laajaat yonente bi alayhi salaatu wasalaam ab jàngalekat la qaala hal tudaaruuna ndax da ngeen lorante fi shamsi ci su ngeen di xool jant bi laysa duunaha saxaab te fekk wenn niir doxul seen digganteeg moom ngeen taxaw ci benn dénd wala benn pénc bëgg a xool jant bi ndax day aajowoo nga naan diw sàngam toppal ba ma mën a xool jant bi wala yéen ñëpp mën ngeen a taxaw noonu di ko xool ndax da ngeen lorante ci séentu gi ngeen koy séentu qaalu laa ya rasulallah kon ñaari misaal la leen yonente bi salallahu alayhi wa sallam jox weer wi su nekkee ci digg asamaan muy guddi leer naññ ngeen taxaw di ko séentu ndax da ngeen di xëccoo pour mën koo gis ñu ne déedéet jant bi su nekkee ci digg bëccëg te wenn niir nekku fa kenn ku nekk bëgg koo xool ndax ak lorante ak raj-raj loo puusante ndax dana am foofu ñu ne ko déedéet kenn ku nekk xam na ne bis boo xamee ne dañuy séentu weer wi bis bu jëkk ba nit ña taxaw di ko séentu lu mel noonu mën naa am kee mën na koo gis kee mën na la ko laax kii ni gis naa ko nga ne ko wan ma ko coow li xaw a bari waaye nag bu weer wa nekk ci digg asamaan sa lu mel noonu amatu fa mu ne leen fa innakum nekk yéen tarawnahu da ngeen ko gis moom seen boroom kadalika noonu ngeen di gisee weer wi ak jant bi te du ab xëccoo du ca am raj raj loo du ca am kon la leen doon xaw a jaaxal moo di mbooloo ma nañ baree li yàlla ma sa bind lépp ñu génn ci benn jataay maanaam li am ci ay muminuuna lépp way gëm yàlla yi ba àdduna sosoo ba tey ñu taxaw mën a gis seen borom ñoom ñépp te kenn du làq kenn lool ndax mën naa am yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox leen benn misaal ci mbindeef su fekkee ne weer wi ci boppam ak jant bi mbindeef lañ te nit ñi suñ ko bëggee xool ñépp kenn ku ne da ngay taxaw fa nga taxaw xool ko te dara du la ko làq moo naka nag ka nga xam ne moom moo bind weer wi moo bind cant bi te du mbindeef yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu wax foofu bul jàpp ne dafa nuróole yàlla ak jant bi wala mu nuróole ko ak weer wi waaye loolu la ñuy tudde tashbihu ruyati bi ruya maanaam sax xool gi ngay xool moom la nuróole xool ga ngay xool fële gis gi ngay gis jant bi yow ak weer wi moom la nuróole ak gis ga ngay gis sa borom waaye nuróolewul jant bi ak weer wi mais nuróolewul borom bi tabaraka wa taala ak jant bi ak weer wi ndax lee mbindeef la kee ci bind bindeef yi la bu la neexee nga ne nuróole la goo xam ne dëgg la nuróole ab gis akub gis la maanaam tashbihu ruyati bi ruya waaye fekk na misaal la moo xam ne dafay dugg ci buntub al awlaa buntub awlaa mooy lan mooy su fekkee ne mbindeef dong ñépp mën nañoo taxaw di ko gis te kenn du xëccoog sa moroom kon ko bind bindeef yi moom koo ko taxut ñuy wax loolu moom daal di leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noppeegut ci wax ji ndax wax ju hadis bu gudd a gudd la fa innakum tarawnahu kadalik mu teg ca ne yajmau dana dajale allahu yàlla annaasa nit ñi yowmal qiyaama su nit ñi dekkee ba jóg taxaw génne ci seeni bàmmeel nee na borom bi tabaraka wa taala bu dekkale ñépp ba dajale leen dafay am benn déclaration bu jóg fa yaquul mu ne man kaana yacbudu shay'an képp koo xam ne dangaa amoon loo doon jaamu falyattabihu na dem toppi ko na dem àndeeg moom kenn ku nekk demal àndeeg la nga doon jaamu fa yattabiu muy topp man ka nga xam ne kaana nekkoon na yaabudu shamsa ka doon jaamu jant ba mu dem toppi a shamsa jant ba ka nga xam ne jant la daan jaamu kooka dem toppi jant ba wa yattabiu muy topp man kaana yacbudu alqamara alqamar ka doon jaamu weer wa dem toppi weer wa wa yattabicu muy topp man kaana ka nekkoon yacbudu di jaamu attaaxuut xiram ya attawaaxiit ka doon jaamu lépp taaxuut dañuy wax ne mooy lépp loo xam ne nit ki da koy jaamu lu dul yàlla mën naa dugg ci taaxut am ñu ca dolli ne te fekk loola daf caa d'accord bu fekkee boroomum xel la mën naa doon loo xam ne xamul dara moom comme yo bant yum samp ay xëram ay xàmb ay xar fuufa yoo xam ne moom lay jaamu di ko defal ay sacrifice am di def ay yëfam kooka ma ngay jaamu loo xam ne xamul dara kooka taaxut la tudd ba tey mi ngi jaamu ku xam dara ki xam dara mën naa doon ku bon mën naa doon ku baax ku bon ki muy jaamu moog moom ñoo bokku àtte ku bon la bu fekkee ne ku bon kooku jaamu gi mu koy jaamu da cee d'accord bu doon nit wala muy malaaka wala muy jinne waaye moom moo bëgg ci jaamu googu amaana moo koy woo sax mu di ko ci jaamu kooka taaxuut lañ koy tudde taaxuut ci boppam euh, ku ñuy jaamu ku dul yàlla la koo xam ne dafa d'accord ca jaamu ga loolu moo tax bu ëllëgee taaxuut ak ka ko doon jaamu ñoom la ñuy boole dugal sawara ñoom ñëpp wuute naag nag koo xam ne dafa baax ay nit di ko jaamu te moom d'accordut ca loola kooka kenn du ko tudde taaxuut parce que bëggut loola ku baax la yonent yàlla isa alayhi salaam kenn ku nekk xam ne nu yonent la ay doomu aadama a ngi koy jaamu tey ci kaw suuf am na ay doomi aadama yu baax yoo xam ne ay nit ñu baax lañ ñu jaar ci siraatul mustaqim ay nit ëppal ci ñoom ba di leen jaamu su boobaa ñooñu ñooy alku waaye taxul kii moom tudd taaxut loolu nag moo tax nit ki ne ci kaw suuf nit ñi fonk ko yëkkati ko mu am responsabilité ndax lu ko mooy danañ ko yëkkati ba teg ko foo xam ne jéggi na dayo ba noppi mu ne ci cell boroom xam-xam yi sunna loolu moo leen wutale ak ñeneen ñu dul ñooñu ñi nga xam ne mooy aimma yi ku ci mas a gis say ndongo wala ña lay topp ñay roy ci yow mu def lenn loo xam ne xeetu teengal la bokk na ci seenu roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy dañ lay yemale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni nit ñëw na ko ne macha allah wa shit bu soobee yàlla soob la mu jàjji ko ne ko waxal ne bu soobee yàlla moom dong coobare yàlla ko yor ay nit nañ toll nañ fële naan ko yow sang bi yow mel nangam nangam mu ne leen taxaw leen wax leen wax ju yem man jaamub yàlla laa di yonentam nee leen jaamub yàlla ab yonentam kon loolu moo tax shirk ak ëppal amul woon ci saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain daf leen doon yar boroom xam-xam yi jaar ci siraatul mustaqim it noonu dong lañ mas a mel ibnu taymiya rahimahullah am na ku mas a ñëw fekk ku mu toog ci taalubeem di jàngale bañ tolloo ci di laaj mu ne ko man dey lu kéemaane daf maa gaar moo di musee bu mag a mag daf ma doon bëgg a alak lu mel ne gaynde ku ko bëgg a fàdd wala lu nuróog loolu nee na nee na ko ma istixaasa ci saw tur man yàlla xet li ma ci ibnu taymiya ci kattanam wala ci darajaam wala waxin yu mel noonu nit ñi di faral di wax nee na dara jóge fële rek daal di sadd gaynde googu mu fa amu alku mu ne ko nag loolu mënuma la koo bañ a wax mu ne ko li nga gis seytaane la li nga gis seytaane la ndax danga xetliku ci mbindeef te loolu bokkaale la yàlla diisul xetliku ci mbindeef mu di la dimbali waaye seytaane moo yebal lu la doon dimbali ngir bëgg nga continuer di ko jaamu te boo ko defee da ngay alku loolu buñ ko waxoon lu bari ci nit ñi dana ah foofu nag de moom kon yaa gisal sa bopp loolu lañ lay wax bu booba yaa gisal sa bopp kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la wax foofu kenn ku nekk dem toppilam jaamu taaxuut kon mooy ki ñuy jaamu te fekk moom dafa bég ca loola waaye nag soo jaamoo koo xam ne béggu ci te bëggu ko te jàjj na la ca loola responsabilité ba yaa ca des léegi moom génn na ca nee na kon kenn ku nekk ñu ne ko demal toppi la nga doon jaamu ci àdduna mu dem toppi loola wa tabqa hadihi l umma nee na ñépp dem wa tabqa muy des nag hadihi l umma wile xeet mooy xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fiiha munafiquha nee na kat naafiq yi it foofu dañuy taxaw jaxasoo ci sun biir bu boobaa ndax dañoo suturlu woon ci jullit yi fii ci àdduna kon ëllëg ca àllaaxira itam dañuy suturluwaat ci ñoom waaye nag suturlu googee du wéy dañuy tàmbali di niitu ci leeru jullit yeeg yu mel noonu waaye rek ni ko borom bi waxe duriba baynahum bi suurin lahu baab ñu jékki-jékki rek ñu sëpp benn miir boo xam ne biir bi xéewal lay doon bi féeteeg jullit yi bitti ba lépp doon mbugal moo tax bi suurin lahu baabun baatinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al adab noonu lay mel foofa lañ leen di tàqale diggante jullit ya ak naafiq yi waaye ci bu kenn ku nekk demee jaamu ji la mu doon jaamu ji naafiq yi moom dañuy ñëw jaxasoo ci biir jullit yi ci diggante boobu ndax dañoo jaxasoo woon ci ñoom di jullee ko woor ak aje ko def ay yëf yu baan yu mel ne yi ñuy def waaye defuñu ko woon ngir gëm yàlla moo tax mu ne fiiha munaafiquha seeni naa bon seeni naafiq dañuy jaxasoo ci biir xeeru bu boobaa fa yatihim llahu tabaraka wa taala su loola amee sunu borom tabaraka wa taala dikkee leen maanaam dikk nag comme ni ko borom bi waxee feneen wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan waaye nee na fi suuratin ci aw melokaan gayri suuratihi wu bokkut ak melokaanam wa allati wa nga xam ne yaarifuun melokaanam wañ xamoon ñoom borom bi tabaraka wa taala foofu da leen di feeñu ci melokaan wu bokkul ak melokaan wañ xamoon loolu ab nattu la ab nattu la ba xam ñoom lañ xamoon ci seen borom ci ay melokaan ñi ngi koy xam ba teyam déet ah kon kat jàng baabu sifaat nekkati lu am solo la muy jàng melokaani sun borom tabaraka wa taala yim melale sun borom boppam ci alquran ak sunna yim ci tudd yépp ci ay melokaan yu mu mel yooyu dañ ko war a xam firi ko bis booba boo gisee sa borom tabaraka wa taala gis melokaan yam waxoon nga xam ni mooma boo gisee weneen melokaan wudul woowa nga fàttaliku sa dars ba nga jàngoon nga ne kii kat du moom moo tax mu ne da leen di njëkk nattu feeñal leen ci melokaan woo xam ne bokkul ak wañ xamoon fa yaquul mu ne ana rabbukum mu ne leen man day maay seen borom ñépp dem nañ kenn ku nekk toppi na lam jaamu yéen yéen a fi des maa ngi nii nag maay seen borom fa yaquluuna ñuy wax ne naudu billahi minka noo ngi muslu ci yàlla mu musal nu ci yow mii hada makaanuna nun day dun la topp fii nu taxaw fi la nuy taxaw fii mooy sunu place xatta yatiyana rabbuna ba ba sunu borom tabaraka wa taala di ñëw maanaam fii daal dun fi jóge ba sunu borom di ñëw ndax nun xam nañ melokaani sunu borom tabaraka wa taala fa ida jaa rabbuna su sunu borom ñëwee arafnaahu kon nu xam ko kon boobu natt moom boobu examen moom jàll nañ fa yatihim llahu nee na bu loolu jàllee nag yàlla dikke leen nag tabaraka wa taala fi suuratihi ca melokaanam wa allati wa nga xam ne yaarifuun wañ xamoon nag fa yaquul ana rabbukum mu ne leen yéen man maay seen borom fa yaquluuna anta rabbuna yow xam nañ la yaay seen borom fa yattabiuunahu nee na ñu ne ko kon waa xërëm yi dem nañ ci xërëm yi waa weer wa dem nañ ci weer wa ña doon jaamu jant ba dem nañ ci jant ba ña doon jaamu nit ña dem nañ ci nit ña nun kon yow lan àndal fa yattabiuunahu wa yudrabu siraatu li lépp ay mashahid la ci bis booba maanaam ay taxawaay la yoo xam ne benn bu ci ne rek ak la fay xew nee na ñu daal di samp nag siraat siraat defe naa ne lu ci bare bari leeraloon nañ ko ci bi ñuy jàng muqaddimatu risaala bayna dahray jahannam nee nañu samp ko ci kaw jahannam waxoon nañ la ne buum gu sew la boo xam daa mel ne cinkóor mu tiim jahannama muy sawara wooyu muy birax nit ñi war a jaar ci buum gu sew googu di jàll fa akoonu may nekk yonent bay wax de ana man wa ummati ak samaw xeet awwala man yu jiis maak samaw xeet nooy jëkk a jéggi wala yatakallamu nee na du wax yowma idin bis boobee illa rusul bis booba ñépp a ngi dekki ànd taxaw kenn ku ne di déglu xamagoo fa sa mbir jëm ñu samp siraat nit ñi war a jéggi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn ak saxaaba yeeg ñañ xamoon ñépp ne cell kenn du ñemee wax lu dul yonente ya yonente ya lu ñuy wax bis bis booba nee na wa daawa rusuli seenu ñaan bis boobee yowma idin allahumma sallim sallim yàlla ak mucc ak mucc ak mucc ak mucc loolu rek la ñuy wax kon mbir la moo xam ne woyefut foofa moom kàddu du fa jib yonent rek kay wax te suñuy wax kàddu googu rek la ñuy wax allahumma sallim sallim kon nguur ga kenn ka rek a ko yor mu ne wa fi jahannam ci melokaani jahannam mu mosal la ci tuuti ci biir sawara wi ñuy tuddee jahannam nga xam ne ci lañ samp siraat muy buum ga nee na nekk na ca kalaaliibu kalaaliib buñ ko waxee mooy ay lugatu ñu ci yàgg a sàmm ci yéen wala defe naa ne ay sàmm waru fee bari waaye léeg-léeg sàmm ba daana nekk ca toon teen ba di root ba mu yàgg baag ba tàbbi ca ndox ma am na ak weñ gu ñuy gu lonk ñi koy takk ci ak buum wala ci goj yoor ko ci biir teen bi su ko defee mu lonk baat bi génne baag bi génnewaat ko loolu la ñuy tuddee ak lugatu jëf jooje muy def moo tudd lugat kon day lugat baag ba yor ak lugatu kalaaliib nag jamu la ci arab pluriel la benn ba mooy kalluub kon jahannama ne ne daa am ay lugatu mislu shawki saadaan ne lugatu yooyu dañoo mel ne déggi suuruur suuruur it defe naa ne ñu bari ci yéen duñ ko xam garab la goo xam ne dégg yu rëy la yor te yaatu te dijj moo ëpp déggi sump ci ña xam sump ci yéen déggi suuruur yu ñaw la yu garaaw la yu doy waar la waaye loolu misaal rek la waaye gën naa rëy loolu sax moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam teg ca ne hal raaytum saadaan ndax mas ngeen a gis suuruur qaalu naam yaa rasulallah qaala fa innaha mislu shawki saadaan nee na lugatu yooyee dañoo mel ne déggi suuruur gayra annahu mu ne waaye kat laa yaclamu munta xam maa qadru izamiha illa allah yàlla dong moo xam na mu réyee kon dalaa jox misaal ci ay dégg ak ci ay lugatu waaye loola na mu rëyee ak na mu toll sunu borom tabaraka wa taala rek moo xam na mu toll loola lu muy jëriñ nee na taxtafu naasa day këf nit ña maanaam di leen musal bi amaalihim ci seeni jëf maanaam lugatu yooyee léeg-léeg nit jeng ba bëgg a daanu mu lonk ko musal ko génne ko donte am na ñu wax safaan bi ne day lonk di daaneel ci sawara waaye li gën a wér mooy day lonk di di xett li moo tax mu ne bi amaalihim ci sababu seen jëf yañ doon jëf moo tax na nga ko jàngee ca beneen xadis ba wax na ña koy jéggi ne ñuy mel am na ñuy mel ne melax am ñoo xam ne dañu mel ne nàngam am ñoo xam ne dañu mel ne ba agsi ci fas wuy daw ba agsi ci góor guy waaxu ba agsi ci ñoo xam ne dañuy deng deng di bëgg a daanu ñu di leen xett li kon lugatu yooyu pour xett li ñooñe ñoo tax fa minhum nekk na ca ñoom maanaam am na ci mbooloo moomu al mu'min ku gëm yàlla baqiya bi amalihi koo xam ne mucc na des na fa loru wut ci sababus jëfam wa minhumul mujaza am na ci koo xam ne ba tey ku gëm yàlla la waaye nag boole na ko ay jëf yu bare bari nag yu baax ñu fay ko xatta yu najja ba mu mucc maanaam bisa ngoogee boo xam ne daal yërmaande sunu borom tabaraka wa taala moo jiitu lépp waaye nag ngëm ga ngëm ga sunu borom tabaraka wa taala ak mucc ga ca bokkaale kooku mooy xett li nit ñi bu boobaa su ci jëf yu baax tegoo nag bañ mën laa musal kon loolu mooy musal nit ka mooy waral gaawaay ga ci kaw siraat yàlla nu yàlla may ak gaaw ci kaw siraat nee na xatta ida faraga ba mu noppi allahu borom ba tabaraka wa taala min alqadaai ca atte ba bayn al ibaadi ba mu atte ñépp ba noppi ba kenn ku nekk jëm fam jëm xam nga àtte woon na leen ña doon topp jant baa nga jëm ci jant ba ña doon weer ba ña doon def nit ñi ànd ak moom siraat ñëw na lay xew a ngay xew wa araada mu bëgg nag an yuxrija mu génne bi rahmatihi ci yërmandeem man araada ka ko soob min ahli naari ci waa sawara maanaam gannaaw boo xam ne jéggi nañ siraat ba ñuy tàbbi ci sawara tàbbi ñuy mucc mucc ñuy romb romb bu gaaw romb bu gaaw borom bi tabaraka wa taala wëlbatiku nag bëgg a xett li ci yërmandeem lenn ci ñi tàbbi ci biir sawara nee na amara mu digal almalaaikata malaaika ya an yuxriju ñu génne min annaari ca sawara wa man kaana képp koo xam ne nekkoon na laa yushriku billahi shay'a képp koo xam ne daawul bokkaale mu ne malaayika yi demal génne ñooñu ñooñu kat seeni bakkaar yu mag moo leen dugal ci sawara waaye gaaw leen génne leen ndax ñooñu mosuñoo bokkaale mimman araada allahu taala an yarxamahu ci ñi nga xam ne soob na sunu borom tabaraka wa taala mu bëgg leen yërëm mimman yaqulu laa ilaha illa allah ci ñi nga xam ne dañ doon wax laa ilaha illa allah te gëm ko mooy ñi am tawxid nga xam ne mosuñoo bokkaale wala buñ masee bokkaale it tuub nañ ko ba tawxid lañ faatuwaale ñooña waxoon naa la ne fuñ mën a jaar àjjana lañ jëm ki faatuwaale tawxid àjjana la jëm bu jaaroon fenn nit dana fa génnaat duggi àjjana kon malaayika yi dem nañ ci biir sawaroo fekk fa mbooloo mu bari ci biir jahannam ñu ne leen génne leen nag ñi daawul bokkaale ñu ne ah waaw ñooñu nuñ leen di xame nee na fa yaarifunahum ñu di leen xam finnaari ci sawara yaarifunahum bi athari sujuud jeexiiti sujuud ya ca lañ leen di xame am na ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañ ne jeexiiti sujuud ya ne ca jéeya ci jéba fa lañ leen di xame ndax ku daan sujjóot ku nekk am na màndarga moo xam ne su boobaa ak leer lay doon am ñu ne déedéet du jéba rek kay waaye juróom-ñaari béréb yi mu daan sujjóote yépp bu ci ne day am màndarga moo xam ne moom la ñuy xool xam ne kii da daan jullil boroomam tabaraka wa taala kon loolu lu màgg la kon ndekete tawxid yi yëmu ca woon rek waaye dañoo yoroon tawxid ba noppi di jaamu yàlla di julli ndax ku daan julli mooy am asaru sujjóot mooy am jeexit woowu nga xam ne bu ëllëgee ak leer lay doon bokkul ak nag asaru sujjóot bi nga xam ne léeg-léeg nit di julli fii ci àdduna ba mu doon ab ñuul ñuul wala yu mel noonu léeg-léeg am ñoo xam ne niñ koy déggee mooy defe nañ ne suñ ko amul fii ci àdduna su boobaa duñ am màndarga muñ leen mën a xamee te fekk du noona loola ak leer guy jolli la goo xam ne ka daan julli moo koy am nga xam ne suñ ko gisee rek xam ko salaaw dem na ba am na ñenn ñoo xam ne dañuy jiima kii seenub jë ci suuf di ko riig bu baax a baax ndax mu mën a am aw jeexit boo xam ne asaru sujud la comme lim di ko siimaahum fi wujuhihim min asari sujud loolu kenn du ko fàggul sa bopp waaye day ñëwul boppam léeg-léeg nag am ñoo xam ne seen der dafa woyof buñ bësul defuñu dara it sujud bi du tee dana am jeexit waaye li ma jublu foofu rek muy jar ta sonn ci di ko wut nag du ko jar kon moo tax mu teg ci ne takulu naaru nee na sawara day lekk min ibni aadama ci doomu aadama maanaam sawara day lekk bu duggee sawara yàlla nu yàlla musal ci dugg ca waaye ka dugg sawara sawara wa day lekk léppam illa asara sujud ba mu des jeexitalu sujud ba mu gën koo fedd li mu ne xarama araamal na allahu yàlla ala naari ci sawara an takula mu lekk asara sujud kon araamal na ci sawara muy lekk jeexitu sujud fa yaxrujuuna wala fa yuxrajuuna ñu génn leen kon min annaari ci sawara wa qad imtaxachu nee na malaayika ñëw xool gis seen jeexiti sujud ñu seppi leen génn leen ca sawara wa fekk ña nga lakk ba ñuul la xawla wala quwata nee na fa yusabbu suñ leen andee alayhim ci ñoom maaul xayaati ndox moo xam ne ci genn dex lay jóge guñ tuddee nahrul xayaa dex koo xam ne dexu dund la tudd ndox mooma la borom bi tabaraka wa taala di digal ñu sotti ko ñoo ñi nga xam ne ñoo jóge woon sawara fayan bu tuuna ñuy sax maanaam der ya lakkoon day delsiwaat yaram ya yàq woon delsiwaat mel noo xam ne moo gën na meloon bu jëkk kama tanbutul xubbatu fi xamili sayli comme ni nga xamee ne pepp mu nekk ci puuge ndox mi taw ba ndox mi wala ngaan mbalit mu bari mi ngay gis ñi koy tudde puuge taw bi jël ko ba bàyyi ko mu dajaloo mel ne mbalit mbuub it pepp ma nekk ca biir na muy gaaw a saxe daal di génn bàyyi fa ñax mu wow ma nee na nit ñooñu noonu la ñuy daal di mel saxaat doonaat ay nit ñoo xam ne ñu bees la ñuy doon summa yafruqu allahu taala min alqadaai bayna alibaadi nee na borom bi tabaraka wa taala daal di noppi nag kon ci atte jaam ñi xadis bi dafa am lu ci nekk loo xam ne mooy waa ji nga xam ne mooy mujj dugg àjjana ci ñooñu waa ji mujj dugg àjjana moo tax am na ci borom téeri xadis yi ñoo xam ne niñ tudde buntu xadis bi baabu axiri ahlil jannati duxulan aljanna loolu la jublu waaye borom bi nee na atte na nag ba noppi wa yabqa mu des rajulun jenn waay muqbilun bi wajhihi ala naar maanaam fañ ko digal daal dafa taxaw moom jàkkaarloo ak sawara maanaam génnul duggut kooka moom foofa lañ ko bàyyi woon mu jàkkaarloo ak sawara wa génnul duggul moo tax mu ne wa huwa moom axiru ahlil jannati duxulan aljanna mooy ki mujj dugg àjjana ci waa àjjana moom waa joojee fa yaqul ay rab saa borom isrif wajhi an innaar li ma lay ñaan lenn rek la sama xar kanam bii nga ma digal mu jàkkaarloog sawara wi nii muy bilax li ma lay ñaan mooy nga digal ma rek ma wëlbati sama xar kanam bi wan ko gannaaw loolu mooy lim li ko li ko mébétam fa mu yem ci jamono yooyu fa innahu nekk moom maanaam jublu gim jublu sawara qad xashabanii maanaam soppi na ma yàq na sama yaram wi jàkkaarloo gim jàkkaarloog sawara wi xashabanii riixuha maanaam ngelawam li alag na ma wa axraqanii lakk na ma dakaauha tàkk-tàkkam li lahiib mooy dakaauha fa yadu llaha ma shaa ma sha allahu an yaduuhu nee na mu taxaw di ñaan yàlla yàlla wëlbatil sama xar kanam bi yàlla wëlbatil sama xar kanam loolu rek mooy itteem ci jamono yooyu summa yaqulu llahu tabaraka wa taala ba borom bi tabaraka wa taala tontu ko ne ko hal asayta in faaltu dalika bika ndax xalset nga su ma su ma la defalee lii ngay ñaan an tasala gayrahu ndax da nga ñaan leneen ndax xalset nga ma ñaan leneen su ma la mayee li nga bëgg fa yaqulu laa asaluka gayrahu duma la ñaan leneen lii rek laa soxla wa yuti rabbahu muy jox boroomam min al uhud wal mawasiq min uhudin wa mawasiq muy jox boroomam ay kóllëre kóllërente woon na maa ak yow def na maa ak yow contrat diggéen dig naa la lu ko soob mu wax ko ci ay dig ci ne ko duutuma la ñaan leneen ah fa yasrifu llahu wajhahu yàlla digal ko mu sañ a wëlbatiku nag won gannaaw sawara léegi fa yasrifu llahu wajhahu yàlla wëlbati kanamam nga ani naar fa ida aqbala ala aljanna mu jàkkaarloo nag ak àjjana wa raaha mu gis ko gis na àjjana ak la fa nekk wan na gannaaw sawara léegi sakata ma sha allahu an yaskut mu noppi ab diir yàlla xam diir boobee nu mu toll suma yaquul muy wax ne ay rabbi sa borom mu ngay ñaanati de qaddim ni ila baabi jahannama dimbali ma rek ma avancé ba àgg ca bunt ba buntu jahannama fa yaqulu llahu lahu sunu borom tabaraka wa taala ne ko alaysa qad aatayta uhudaka mawasiq wa mawasiqaka xanaa du yow yaa joxe woon say kóllëreeg say dogoog say contrat laa tasaluni gayra alladi utit yaa waxoon ne duutoo ma ñaan lu weesu li ma la jox waylaka yabna aadam cey yow doomi aadama maa axdaraka yaa ka bari ay wor yow doom aadama fa yaqulu ay rabbi saa boroom wa yadu allaha xatta yaqula lahu continue di ñaan di ñaan ba borom bi tabaraka wa taala ne ko hal asayta in ataytuka dalika an tasala gayrahu ndax xal seen nga maa ñaanati leneen su ma la joxee loolu fa yaqulu laa duutuma la duutuma la ñaan wa izzatika gi yoon moom da koo giñ sax waat naa ko ci sa sa sa màgg fa yuti rabbahu ma sha allahu min uhudin wa mawasiq lépp lu mu xam ci ay ndëgërlukaay ay giñe ci waat ak yooyu ne duutuma ñaan leneen fa yuqaddimuhu borom bi tabaraka wa taala avanceel ko ila baabi ljanna ba mu agsi ci bunt ba nag fa ida qaama ala baabi ljanna su taxawee ci buntu àjjana in fahaqat lahu ljanna àjjana ubbiku bunt yi ubbiku ak yaatuwaay bi mu jàkkaarloo moom di xool nag la ca biir wa ma fiha ak la fa nekk min al xayri ci mbégte mi ci aw yiw wa sururi ak mbégte su jàkkaarloog lool di ko xool nag fa yaskutu ma sha allahu an yaskut mu ne cell ab diir ba tey sunu borom a xam diir boobu nu mu toll summa yaqul ay rabbi adxilni aljanna yàlla maa ngi lay ñaan na nga dugal ma àjjana fa yaqulu allahu tabaraka wa taala lahu borom bi tabaraka wa taala ne ko alaysa qad aatayta uhudaka wa mawathiqak da ngaa fàtte sa ngiñ yéeg sa waat yéeg sa kullër yi nga waxoon an laa tasala gayra ma utit waxaat ko ne ko waylaka yabna aadam ma axdarak yow doomu aadama ku bari ay war nga fa yaqulu ay rabbi laa akunu ashqa xalqika maa ngi lay ñaan ma bañ a doon ki gën a texee di ci mbindeef yi ndax fii mu taxaw nii jàpp na ne moom su toogee di xool lii te bokku ca mooy ki gën a texee di nit ñi faf kon léegi jóge na ci yam doon ñaan yépp léegi lii muy jàkkaar lool te mënu cee àgg mooy mbugalam léegi fala yazaalu du dañ yad'u allaha xatta yadxaka allahu tabaraka wa taala nee na continuer di ñaan ba sunu borom tabaraka wa taala ree ree gu yelloog màggam ga subhanahu wa taala yadxaka tabaraka wa taala minhu fa ida daxika allahu minhu su borom bi tabaraka wa taala ree nag qaala udxulil janna mu ne ko dugal duggal àjjana nag fa ida daxalaha su ko duggee nag ba xas nekk ca biir qaala allahu lahu borom bi tabaraka wa taala ne ko tamanna mébétal xoolal loo bëgg rek nga ne nangam laa bëgg fa yasalu rabbahu wa yatamanna ginnaaw da doon ñaan mu ne ko nag buntum ñaan nag ubbi ko laajal nag loo laaj ñi jox la muy ñaan di ñaan ba nee na sax xatta inna allaha la yudakkiruhu nee na ba borom bi tabaraka wa taala sax di ko fàttali min kada wa kada di ko dox ah yaa ngi wax da waaye fàtte nga nangam neen mu fàttali ko loola waxaat leneen mu ne fàttaliwaat ko leneen ci loo xam ne waxu ko woon xatta ida inqataat bihi l amaani nee na muy mébét ba mébét ya dagg amatut lu mu wax qaal allahu taala yàlla ne ko dalika laka wa misluhu maahu jox naa la mboolem li nga mébét tegaatal la ci leneen lu toll noonu kon yërmaande sunu borom tabaraka wa taala yaatu na lu lu lu ama am solo la ci ku topp xadis bi xool ni mu tëdd ni ni nit ki ëllëg ak lu mu mën a am lu dul dugg àjjana loola amut solo tax borom bi ne fa man zuxziha an innaari wa udxila aljannata faqad faas ku mucc sawara ba noppi dugg àjjana kooko texe na kon ak loo mën a yaakaar ci xéewal lu dul dugg àjjana ëllëg foofa xéewloo goo àjjana it boo fa duggee xéewal ga dal nay mat mayu sun borom tabaraka wa taala akuk njéggalam ba ci waa ji nga xam ne mooy ka gën a suufele ci àjjana wala mooy ko fa mujj a dugg bopp gis nga fi borom bi tabaraka wa taala jaar ak moom ak yërmandeem xadis bi nag fii abu hurayra riwaaya bi mu wax daf ne borom bi tabaraka wa taala daf ne ko mboolem li nga mébét jox naa la ko ak leneen lu ni toll abu hurayra li muy nettali xadis bi lépp ata nee na ata ibn yazid nee na abu said al xudri mi ngi déglu abu hurayra muy nettali ndax ñoom ñaar ñépp ko déggee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na abu said al xudri juuyoowul ak abu hurayra ci benn baat ci xad ci xadis bi nee na ba fi abu hurayra waxe ne wa misluhu maahu may naa la leneen lu tol noonu booleel la ko ci qaala abu saidin nee na abu said bi mu agsee foofu mu ne ko wa ashratu amsaalihi maahu ya aba hurayra Abu Saïd ne ko la la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax mooy dane ko may naa la yeneen fukk yu tol noonu waxul beneen bu tol noonu ne ko loolu la wax de Abu Hurayra Abu Hurayra ne ko maa xafistu man de li ma mokkal moo di lim ko wax ne ko wa mislahu maahu maanaam leneen lu tol noonu Abu Saïd waat ne ko ashhadu anni xafistu man li ma mokkale ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo di lim ne ko wa ashratu amsaalihi maanaam fukk yu toll noonu la ko cay dollil defe naa ne googu juwoo ci seen diggante ñoom ñaar doonut loo xam ne luy lor la xéewal la goo xam ne ku ku yemoon ca benn ba sax li nga mébét lépp lépp lépp ñu jox la ko loolu doy na buñ la ca tegalaate leneen lu toll noonu nag kooku xéewal la gudul jeexati bu dee fukkati nag yu toll noonu kooka moom kenn xamut euh, yàlla rek xam nu mu toll qaala abu hurayra wa dalika rajulu joojale waay axiru ahli ljannati mooy ki mujj ci waa ajjana duxuulan ci ak dugg aljanna ajjana mooy ka mujj a dugg ajjana mooy waa jooja xadis bi ay njariñ yu bare bari nekk na ci waaye ginnaaw dafa gudd te waxtu waa ngi avancé ñu jël ci lenn moo di ba ci jëkk isbaatu ru'yati almuminina li rabbihim yowma alqiyama wa qabla duxulihim aljanna kon jullit yi ñi gëm yàlla wér na ne danañu gis seen boroom danañu gis seen boroom bala ñoo dugg àjjana saxoon na ci jataay bi weesu ne bu ñu duggee àjjana ba noppi borom bi da leen di feeñu won leen boppam ñu xéewlu xéewlu gu rëy waaye gii gis nag jiitu na ñoom seen dugg àjjana am na tomb borom bu fële moo di wax na ne borom bi tabaraka wa taala bu leen di feeñu moom xeet wi fekk na naafiq yaa nga ci seen biir bu ci déggee mukk ne naafiq yi dañuy gis seen borom ci melokaan wi nga xam ne moo di aw melokaanam wow dëgg-dëgg ndax melokaan wam leen wonoon ñi gis ko ca mooy melokaan wadul wañ ko xamee fañ ko weddee ne ko déedéet mu door leen a feeñuwaat waaye nag won nga dëgg-dëgg nga xam ne gisug seen borom la kooka naafeq bokku ci yéefar bokku ci lim wax ne fa yaatihim allahu taala fi suratihi allati yaarifuun lim wax ne borom bi tabaraka wa taala da leen di feeñu ci melokaanam bi nga xam ne mooy wiñ ko xamee day wane ne ñi ñuy tudde ahlul isbaat muy ñi saxal melokaani sunu borom tabaraka wa taala ak turam yu tedd yi sax ci alquran ak sunna ñooñu ñoo xam seen borom baatu maarifatullahi nit ñi dañ koy jëfandikoo lu bare bare bare bare ñenn ñi jëmale ko ci xam-xam yu nëbbu yéeg li ñu tudde ay asraar ak xam-xam yu baatin ak yu kenn xamul yu mu doon ci àdduna ñooñu xamuñu seen borom ay jinne lañ xam ak i seytaane ak i rawaan ak yu kenn xamul waaye xamuñu seen borom ki xam boromam mooy ki jàng alxuraan ak sunna xool tur yi borom tud boromam tudde boppam mu xam ne lii ay turam la melokaan yi melale boppam mu xam ne lii ay melokaanam la ñooñu la seen xam-xam wér te mooy doon xam-xam bi jëriñ ëllëg ndax mooy doon xam-xam bi nga xam ne su leen seen borom feeñoo ñu xam ne kii mooy ki ma jàngoon ñetteel ba ann gayra almuminina la yarawna rabbahum ala sifatihi kudul ku gëm yàlla nag ngëm gu wér kooka du gis boroomam ci melokaanam yam waxoon moo tax dañ leen di yiir même suñ teewoon ci benn géew bi jullit yi xool di gis ñoom bu ñuy xool leneen la ñuy gis lu bokkut ak la ñuy gis moo tax mu ne kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubuun bis booba dañ leen di yiir ba duñ gis seen borom suñ xoolee duñ gis dara ñeenteel ba bayaanu shiddati lhawli wa anna rusula dawaahum allahuma sallim sallim fa kayfa bi gayrihim bisa ngoog boo xam ne bu ñëwee ñéppay téye seeni làmmiñ ba mu des yonent yi alayhim salaatu wassalaam te ñoom suñuy wax ñaari benn baat lañu am bu ñuy wax mooy yàlla musal nu yàlla noo ngi lay ñaan ak mucc mucc googu nag ñoo ak seeni xeet lañ koy boole di ñaanal kon faw mbokki jullit yi ñu xam ne lu bare bare bari loo xam ne ay nit a nga koy fas tey wala ñi koy yaakaar wala ñi koy njort jàpp ne ay yoon la yu nit ke di jaar di xettliku wala jàpp ne ay doom aadama am na ci kaw suuf yoo xam ne ñoom wóor na leen ne ñoom xetliku nañ ba noppi waaye dañuy xetli nit ñi léegi moo leen tax a jóg loolu ay pas-pas yi njuumte la yoo xam ne yu ma tawattandiku la bis a ngi ñëw boo xam ne kenn du wax ka nga yaakaaroon ne mooy ku rëy ba léeg-léeg nit sax wala yaasu bi laa ne diw yàlla la wala wax ci moom wax yu rëy rëy su boobaa ñéppay tey seen làmmiñ kenn du wax yonent yàlla yim yebaloon képp ñoo sañ a wax te li ñuy wax benn kàddu la mucc mucc loolu lañ soxla soxla wuñ leneen kon waxtu wii nu nekk fii ci àdduna mooy bérébu bi yeewute bi ku fi yeewoowul ba weesu fii nag leneen loo gis xamal ne borom bi tabaraka wa taala tooñu la wàcce na téere bu toll ne alxuraan ngeen di ko gis yebal ab yonent bu baaxee ne muhammad ibnu abdillahi sallallahu alayhi wa sallam mu leeral diine ba lépp leer mu génn àdduna bàyyi fi ay saxaaba saxaaba yooyu bàyyi fi taabi'un ñooñu jóge fi bàyyi ay boroomi xam-xam ak i imaam ak i jàngalekat ñooñu continuer ba ci suñ jamono ji di leeralal nit ñi li nga xam ne moom la yàlla ko yonentam wax kon ku won loolu gannaaw jëm ci leneen loo xam ne ay njort la ak i naxaate ëllëg da nga dajeeg sa borom tabaraka wa taala xam ne ci njuumte nga nekkoon bu boobaa réccu dana am te fekk réccu wees na ndax amatul njariñ bu boobaa yàlla nañu borom bi tabaraka wa taala gindi ci siraatul mustaqim danañ jànge ci xadis bi xuturatu shirki wa anna rahmatallahi tanaalu almuwaxidina waxdahum bokkaale ni mu ree jàngaale nañ ko ci xadis bi ndax bi muy yebal malaayika di wax ne dem leen xeet li ñi tabbi sawara dane leen ñi nga xam ne musuñoo bokkaale ñi nga xam ne faatuwaale wuñ bokkaale demal génne ji ñooñ kooku da lay wax bokkaale ni mu garaawe kon jullit bi jaadu na mu jàng ba xam bokkaale mooy lan mu daw ko na muy dawee lépp lu mu ragal ndax kat ñu faatuwaale tawxid doog ñooy mën a mucc waaye keneen mënta mucc danañ ci jëriñoo azamatu qadri lsalaa xaytu taakulu nnaaru kulla cheyin illa mawaadica sujud màggaayub julli feeñ na ci xadis bi bu fekkee ne sawara day lekk lépp ba mu des béréb bi sujuutukaay ya kon nit ki xam na ne julli lu mënta ñàkk ci dundu jullit la ka julliwul woon kooka su ko lu mel noonu gaaree ba mu tàbbi sa war a malaayika yi ñëw di génne su boobaa du gis ci moom menn màndarga ndax julliwul woon bay am mawaadi sujud kon yàlla nu borom bi tabaraka wa taala gindi jaaral leen siraatul mustaqim am na fi ay benn benn laaj insha allah ñu jaar ci bala ñu leen a jox kàddu gi kii dafa laaj julli ci gannaaw koo xam ne li ñu tudde faasiq la faasiq mooy koo xam ne daal ab jullit la mën naa julli xam na àttee julleegi yépp waaye am na xeeti mbon yu nekk ci moom ci ay cëram wala ci ay jikkoom wala yu mel noonu loo xam ne daal faasiq doonut ku maandu daal maanduwut ci sharia dañuy wax ne su fekkee ne julli gu wér lay julli ahlu sunna wal jamaa moom dañuy wax ne mën ngaa julli ci seen gannaaw loolu moo tax sharia waxu la ne boo ñëwee ci béréb fekk kuy julli laajal ba xam maandu na wala maanduwul waaye imaam la daal joo xam ne nit ñaa ngi julli ci gannaawam dugg nga ci jàkka ji fekk ñuy jàng nga déglu xam ne kii jàkka la xam ne ñii julli ay jullit lañ mën ngaa jaxasoo ci seen biir julli buñ sëlmalee nga sëlmal dem sa yoon te du la lor kon julli gu wér gi julli gu wér gi wér na su fekkee dafa am njeng nag wala mbon wala caay-caay gu ne ci moom goo xam ne moo tax nanguwuñ ak jaamu yàllaam loolu moom la concerné maanaam mbirum boppam la moo xam ne jeexitalul ci julli gi li am solo daal mooy julli gi na doon gu wér ngir ñu mën a roy ci moom ki dafa laaj mu ne ndax mën nañoo wax ne mawlid mooy li ñu tudde gàmmo mën nañoo wax ne ndax biddaa bu rafet la tegtaloo ci salaatu tarawih muy julli naafila ci koor ndax moom naafila moom it ci li borom laaj bi wax dañ koo sos gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu fekkee sos nañ naafila gannaaw yonent bi ba noppi rafetlu ko ndax mënuñu kon sos gàmm ba noppi rafetlu ko su fekkoon ne noonu la demee kon mën ne ok waaye déedéet demewul noonu jullit yi amuñu ay jaamu yàlla maanaam ahlu sunna amuñu ay jaamu yàlla yoo xam ne dañ koo sos gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam salaatu tarawih ki ko jëkk a julli moo di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam julli na ko ñetti fan ci jàkkaam ji bis bu jëkk bi saxaaba yi ñëw ànd mu jiite leen ñu ñëw ci gannaawam bisu ñaareel ba ñu ñëwaat bisu ñetteel ba wala ñeenteel ba ñu toog di ko nekk génnul ñi dajaloo foofa ca jàkka ji di ko xaar ba suba bi fajar jotee mu génn julli fajar ba noppi ne leen day fii ngeen toogoon di ma nekk yëg naa ko waaye nag li tax génnuma moo di lii dama ragal ñi farataal ko ci yéen ndax su ma continuer di leen julli julli gi mel nii mën nañoo farataal ci yéen salaatu tarawih te su boobaa mën naa diis kon kooku ci yërmande yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la arrêté salaatu tarawih te taxul woon jullit yi ñi bàyyi salaatu taraawix yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyiwu ko woon moom itam waaye liñ bàyyi woon mooy lan dajaloo ci jàkka ja di ko julli mbooloo kenn kon da nga ko daan julli ci sa kër loolu la des ci dunduk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noona la ko def abu bakar siddiq mboolem ak xilaafaam noonu la jullit yi doon taraawixe kenn ku nekk sa jullik sa bopp ba ci jamonoy omar ibn alxataab radiallahu taala anhu mu ñëw ci jàkka ji gis nit ñi julli salaatu tarawih kenn ku nekk ci sa roqub bopp ñële di julli fee ñee di julli fële mu boole leen ci benn imaam ne leen ubay ibn kaab nay jiite bu sonnee mu jox tamim addaari mu jiite ñi taxawal ñoom ñaar kenn ku nekk di julli kon omar ibn alxataab dafa dundal loo xam ne lu raafoon la sunna boo xam ne dafa raafoon boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko bàyyi woon ngir sabab sabab moo taxoon mu bàyyi ko sabab boobu dem nañ ba jëmmi jamono mu dañ lan la yonent bi doon ragal mooy ñu farataal ko yonent bi génn na àdduna kon kuy farataal amatul kon lam doon ragal dañ na loolu mooy fiqhu Omar ibn al-Khattab moo tax mu xam ne jaamu yàlla googi ak li mu amee solo mën naa dellusiwaat ndax la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon ragal amatul. tax boroom xam-xam yi usul yi dañuy wax ne alxukmu yaduuru maa illatihi wujudan wa adaman atte bu mën a doon muy atteb sharia su fekkee am na sabab maanaam illa boo xam ne moo tax atte bi ñëw atte bi day ànd ak illa ba su fa nekkee mu nekk fa su fa jógee mu jóg fa atte bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam atte woon foofu mooy arrêté jullik tarawih ngir benn sabab mooy ban ragal ñu farataal ko sabab boobu dañ na léegi kon àtte bi moom day dañ moom itam maanaam arrêté gi mu ko arrêté woon mën naa dañ moo tax Omar ibn Khattab ci fiqam mu xam ne loolu la. amaana nag ñenn ñi li lënt ci seen bopp mooy li Omar wax ne ni'matil bid'atu haadihi bi mu leen xoolee ñiy julli julli gu jekk ñoom ñëpp àndandoo di julli mu ne ah lii day bu fekkee biddaa la bu rafet la biddaa ci kàllaam ak arab dañ koy. tudde lépp lu yees loo xam ne lu mel noonu musta am wala amaana am na lu mel noonu lu mas a am waaye nit ñi xamatuñ ko woon maanaam dafa raaf dafa nëbbu kooku bu la neexee ci kàllaam ak arab nga tudde ko biddaa waaye bokkul ak sharia nag sharia mooy nga sos ci diine loo xam ne amul bokku ca def ci diine lu ca bokkul kon salaatu tarawih ci la bokk suñ ñëwee nag ci lii ñu tudde gàmm moom da cee bokkul ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xamu ko ay saxaabaam xamuñu ko amut kenn koo ma wax ne mas naa gàmmo ci yonente bi ba ci saxaaba yi ba ci alqurunul mufaddala yépp bañ jeex ñetti seekal yi nga xam ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na xayru nnaasi qarni summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum amu ci kenn kuñ la mën a saxalal ne gàmm la ñi gën a xóot ci gàmm sax loolu duñ ko wax nga xam ne suñ ko waxee mënuñ koo andi dalil léeg-léeg nga dégg ku la ne ah yonente bi kat da doon woor alterné ñi ne ko lu tax ngay woor alterné mu ne day bis boo xam ne ci laa judd mu kay loolu wér na xadis bu wér la waaye ndax loolu kon su fekkee danoo bëgg a màggal bis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam juddoo woon kon nan lañ koy màggale ndax dañuy def ni mu defoon wala dañuy fent suñu yoonu bopp defe naa ne li dëppoog diine mooy nu def ni mu defoon mooy nu woor bis boobu waaye defe naa ne safaan ba la ñuy gis au lieu woor maanaam dañuy lekk lu ëpp loolu mooy faral di am kii def ne taqabbalallahu minna wa minkum salih al amal amin waa joo xam ne daa julli ci jàkka ju am ab xabru te xamu ko woon gannaaw bi mu xam ne ab xabroo fa nekk mu ne ndax day baamtuwaat julli ga ànd ak ne xabru ba dafa nekk ci kuuru jàkka ji waaye nekkul ci biir jàkka ji déedéet du baamtu julli gi ginnaaw xabru bi nekkul ci biir jàkka ji waaye daane ca kuur ba dëgg la foofa du du ay xabru suul ko foofa njuumte la waaye nag yàqul julli ga nga xam ne moom ca biir jàkka ji la xabru su fekkee ne dafa nekk ci biir jàkka te am na li ñuy tudde xaail maanaam am na lu dox digganteem ak salle de prière ba fa nit ñiy jullee dëgg la moom jaaduwut tere nañ ko xaraamal nañ dugal bàmmeel ci biir jàkka loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko tere tere ak araamal waaye su fekkee dugal nañ ko ci jàkka te fekk digganteem ak fa nit ñiy jullee am na ab miir jullee ci biir salle de prière boobu taxut sa julli yàqu boroom xam-xam yi sopp nañ nag nga bañ a tolloog fa tolloog xabru ba di fa julli waaye nga seet beneen béréb boo xam ne ci biir jàkka ji la waaye doo doo jublu xabru bi mu mel ne mooy sa xibla su amee wala ñu yem ci kayit yi rek jot na de incha allah kon jotaay bi ñëw danañ xool question yi fi ñëw yépp incha allahu bu ñëwee comme que laaj yi dañoo xaw a takku danañ danañ gàttal xadis bi te jublu ci laaj yi. sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi